ci ñaani tamxarit ah euh, ñu ne man qaala fi yowmal asura sab'ina marra képp koo xamante bi jour yi tamxarit ñaan gi déglu leen bu baax wax na 70 fois hasbiya allahu wa ni'mal wakiilu ni'mal mawla wa ni'man nasiru da nga koy wax 70 fois juróom-ñaar fukki yoon wa daa bi du'aa'i al aati sab'a marra ñaan gi nga xamante bi ni moom lay wax si léegi nga dal di koy wax sept fois lam yamut fi tilka sanna incha allah doo dee ci boobu bii at at bi nga xam xamante moom la ñu dënmal doo ci dee te gudd fan am na solo lool de xam gudd fan la dépendre ci nooyi kon nooy yow dee de gudd fan mi ngi dépendre ci nooyi dégg ah, ah, ñaan al minzani wa muntaha al rida wa zinat al arshi la malja wala man jaa min allahi ila ilayhi سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته تامات كلها أسألك سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين مجه نتكتي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نيان جمو نيك نون سبحان الله مع المنظان ومنتهى الإم ومبلغ الرضا ومن طلعت لا جاء ولا من جاء من الله إلى إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات تامات كلها أسألك سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين سفا لنك جان نتشي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم naa la ko jox nga dugal ko inshallah allah passe passage bi subhanallahi mi al min dhani wa muntaha wa mawla rida wa mina tarashi la la ja wa la ja min allah ila ilay subhanallah adada shafi wal watiri wa adada kalimati tamati kulliha asaluka salamatan برحمتك يا ارحم الراحمين ولا خول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نكو جوار اريس لا دنجو جخ نينن ني جيم كاي جان جولي بو نيك وار نكاي موكال سيت فوا غوكاي واخ نيان جي لاني واخنا بوكو ديفي ات حسبنا الله ونعم الوكيل نعم مولا ونعم النصير 70 فوا تبارك الله ادمي دو تي ген ادنا ان شاء الله bu fekkee ne yàlla dogal na incha allah ñu organiser jour tànqari bi wàccee def ay ñaan daayra kaamil bi ñoom maam lamp incha allah nañ def ñaan gi parce que digle nañ lu mel ni ñu daje benn kër benn borom xam-xam nekk fa di joxe dog yi ñuy ñaan ba pare def ñaan gi di wax baat par baat nit ñi di koy topp suñu waar bu góor waajur bu góor Cheikh Bounama Aidara yal na yàlla la taxawaayam moom noonu la koy defee tabaarikàlla loolu moo ci loolu moo ci nekk kon ñaan ngaa nga noonu kon léegi pare nañ